أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala comme nin ko baaxoo def tey ñuy jël ñetti aaya 81 82 83 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala ñeenti mbir lañu ciy jàngal ba ca jëkk mooy min alaamati nifaaq al farax bi tarki taatillahi wa rasulihi borom baa ngi jàngal benn màndarga benn xàmmekaay bu ñuy xàmmee naafiq benn màndarga bu ñuy xàmmee waa ji nga xam ne moom mooy naafiq yooyu ba ca jiitu mooy ab naafiq day kontaan ci ñàkk topp yàlla day kontaan ci ñàkk topp yonent bi xam nga ab jullit dafa war a tiit su toppul yàlla topp yonent daf cee war a tiit waaye ab naafiq moom da ciy kontaan loolu tax tey wax dëgg yàlla suñuy jël alquran di ko natt ak suñu dund wala lenn ci ay nit ci seen dund danañ gis na ñu bëree bëri ay naafeq lañ réew mi ngay gis balaa nit bëgg kontaan def lu wuuteeg santaane yàlla daat ci kontaan yenn saa yi sax boo ko bëggee del delloo ginnaaw pour mu tuub muy féttirlu réew mi ngay gis nit wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kontaan te wuuteeg yàlla ak wuuteeg yonent ba pare naqariwu la nga kontaan ci yonent bi yàlla nee na loolu màndarga naafeq la nit bàyyi julli ba pare dëgër ci lool nag ñu ne la bàyyi julli ab yéeféer moo koy def nga ne sama yoon nekku ci nit bàyyi koor nit bàyyi aji màkka nit bàyyi nit bàyyi nit bàyyi nga gis góor jox loxo jigéen nga wax ko mu ne la sama yoon nekku ci maanaam yonent bi day tere ay mbir nga gis nit def ko nga wax ko ko mu soofal la yàlla tere ay mbir nga gis nit def ko nga koy delloo mu soofal la kon na ñun ñëpp nañ bokk xam ne dafa bokk ci mandargay naafiq wuuteeg yàlla ak wuuteeg yonent te aaya baa ngi ñëw ba ca tegu mooy min alaamati nifaaq kiraahiyatu taatu la wa taatu rasul bokk na ci mandarga naafiq mooy foo fekk ab naafiq day bañ a topp yàlla day bañ a topp sunna boo ko ne yàlla nee na mu ne la non amul problème parce que man affaire yooyu boo ko ne yonent bi nee na mu ne la nan laay def li ma fi fekk da koy bañ day bañ topp yàlla ci xolam waaye bañ topp yonent bi alayhi salaatu salaam sànq lan la ñu waxoon fële mooy day kontaan ci bàyyi bi mu bàyyi topp yàlla loolu mandarga naafiq la fii nag daf koy sib ci xolam du ko bëgg ñaar yëpp ci mandarga naafiq la bokk. te xam ngeen naafiq waxoon nañ ci dar si passé kan mooy naafiq waxoon naafiq ëllëg lan mooy fayam yowmal qiyaam yàllaa ko wax. innal munafiqina fi darikil asfali minan naar waxoon nañ lan mooy naafiq waxoon nañ ay màndargaam waxoon nañ lan moo koy joxe ixwaan yi ñetteel mooy kirahiyatu dahik wal iksaari minhu sunu sunu diina jii di diina lislaam sunu sharia bii di sharia yàlla sunu sunna bii di yoonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa bañ dafa sib jullit di reeru bari foo ko fekk muy xaxataay ak a keke keki comme ñun niñ koy defee ngay gis sax ci société bi koo xam ne moom métier mooy reetaanloo nit ñi su waxee ñu ne kii moom day reetaanloo waate rek waaw sans stress xaw ma nu ngeen noonu ngeen koy waxee. non stress di keke keki te loolu l'islam def koo bañ dañoo bañ ay reetaan yu bëri yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na iyaakum wa kasratu dahik fa inna kasrata dahik tumitul qalb moytandiku leen ree yu bari ndax reetaan bu bari day rey xol yàlla mu ne fal yad fal yab fal yadhaku qalilan wal yabku yàlla nee na reetaan leen tuuti jooy lu bari sallallahu alayhi wa sallam nee na law alimtum ma alimtu law taalamuuna ma alamu su ngeen xamoon li ma xam la dahiktum qalilan wala bakaytum kasiran su ngeen xamoon li ma xam di ngeen jooy lu bari reetaan tuuti wala xarajtum ila sudaat tajra'uuna ila allahi taala su ngeen xamoon li ma xam di ngeen jooy lu bari reetaan tuuti di ngeen génn ci seen biir kër yi dugg ci àll yi wooteel yàlla tabaraka wa taala comme mu ne wama lazastum bin nisa kon dootu leen bànneexu ci jigéen ñu ne yonent lan nga xam lu nu xamut mu ne dem naa aljanna dem naa safara ñaar yëpp gis naa ko su ngeen ko gisoon ni ma ko gisee kon di ngeen jooy lu bari ree tuuti allahu akbar ñu ne yonent safara loo fa fekk mu ne jigéen ñaa fa ëpp ha sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam natt leen seen société jigéen ñi ngeen natt waxu yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne jigéen ñi ñoo fa ëpp ñu ne ko jaar nga aljanna mu ne waaw ñan ñoo fa ëpp mu ne miskiin yi allahuma ij'alni miskinan wa ahyaani ma al miskiin loola daan wax yow yàlla yàlla ma def miskiin ma dund ànd ak miskiin yi ma dee ànd ak miskiin yi ma dekki ànd ak miskiin yi yow mal xiyaam miskiin yi ñooy njëkk a dugg aljanna juróom fukki at borom alal li doog a ñëw juróom fukki at yooyu xam ngeen ñaata fan la ci yàlla ah inna yowmal inda rabbik ka alf sanati mimma ta'udun yàlla benn bis ci moom mooy sunu junni at xaajal junni bi genn wàll kon genn wàllu journée bi ñaata at la ci yàlla juróomi téeméer juróomi téeméeri at la miskin yi dugg aljanna ñeneen ñi doog a ñëw ndax benn fat sunu benn fant yàlla mooy sunu mooy sunu junni at ñun dañuy compter junni at mu nekk benn fan ci yàlla loola tax àddina bi ki fi gudd fan ci yàlla benn fan la fi am wala dafay jaar benn suba loola tax yowmal xiyaam bu ñu fëggee bàmmeel yi gaa yi dekki dañ naan in labis na illaa yowman ñeene lam yalbasu illaa asiyatan ndeysaan bu ñu leen laaj waaye nga dégg ñu ne in labis na illaa yowman aw baada yowm fekk kooku am na téeméeri at fii ñu ne ko yow waa yow ah mu ne doodoo man kay damaa xëy rek dee fekk am na fi juróom fukki at mu ne damaa xëy rek bi ma juddoo bi ma juddoo ba midi rek damaa dee fekk am na juróom fukki at ci àddina bi allahu akbar moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne àdduna amul valeur àdduna amul valeur mbokk jullit yi àdduna amul sens amul njëriñ walaw ista alfa aamin wa alfayni baadahu fala budda yowman tadxulul qabr soo dundoon junni at buñ la wisaatoon yeneen junni at yàgg-yàgg di nga dugg bàmmeel kon loo fiy bokkaalee loo fiy tooñee yàlla loo fiy wuuteeg yonante bi alayhi salaatu wasalaam jaru ko unzuru unzuru xool leen ba ngeen juddoo ba léegi xool leen ñi am alal yëpp après quelque temps ah am na barki démb benn waaye buñ naan dafa amoon alal ba mars barza day jël avion dem seetaani ko ñëwaat sénégalais mun naa bëgg mun naa tudd turam mais du ko jar match Barça daan jël avion dem seeti ko ñëwaat ah anamu dee na bàyyi ay milliards waxuma million de ay milliards la bàyyi kon amul njëriñ amul sens boo moomoon Sénégal gi di nga dee bàyyi ko fi boo moomoon Afrique di nga dee bàyyi ko fi boo moomoon adduna bi di nga dee bàyyi ko fi kenn dong moo fi moo dul dee mooy allahu subhanahu wa taala kullu man alayha kullu nafsin kullu shay'in ixwatal iman ba ca tegu ci ñeenteeli mooy tu'tamad tarku taa qad yusabbihu alxirmaanu minha xam nga doomu aadama lu tax muy ñàkk yërmande yàlla lu tax doomu aadama di ñàkk yërmande yàlla doomu aadama di ku yelloo ak yërmande yàlla waaye lu tax mu koy ñàkk lan mooy sabab bi mooy tarku taa bàyyi topp yàlla ak yonent soo bàyyee topp yàlla ak yonent sikk nekku ci ne yërmande yàlla dootu la jege ndax wa man yaasi llaha wa rasulahu wa man yaasi llaha wa rasulahu faqad dolla jeex na kon ixwatal iman ñeenti yi suñ ko tënkee moom mooy aaya yi ñuy jàng tey ñeent yépp danger la ba ca jiitu mooy di kontaan ci bàyyi topp yàlla ak bàyyi topp yonent bi képp koo gis mu bàyyi topp yàlla bàyyi topp yonent ba pare di ci bég xamal ne am naa fiqa ngoog ab yéeféer a ngoog buy dee dugg safara topp yàlla kenn du ko fowee sa jabar ji sa biir kër su la bañee topp rek nga am ak moom problème wala ah kan moo fi am soxna ci jumaa ji négati loxoom su la sa jabar bañee topp nooy def da ngay kontaan wala da ngay mer da ngay jubóog moom wala da ngay ah jëflanteeg moom da ngay jëflanteeg moom bu jëf waaw muy mu gën a taral nga gën a taral yenn saa yi sax ngeen dem ba nga ne ko comme ne nangoo maa topp tam ngir yàlla ñaanal paas bàyyil sa soxna ñëwal sa so- sa doom li nga koy jur muy sa deret su la bañee topp nga jëflanteeg moom alaysa kazalik ki lay liggéeyal bu la bañee topp ci ni nga bëgg liggéey bi mu demee ko nga ah nga jëflanteeg moom ok suñ tegee benn alkaati ci circulation bi ñu ne oto yi nii la ñuy dawee bu waa ji bañee topp loolu lu lu ñuy lu ñuy def ak moom ah waaw léegi nag yow nga bañ a topp yàlla nga ne kenn du jëflante ak yow loolu ay wax la billahi allazi la ilaha illa huwa boo duggee bàmmeel yàlla jëflante ko ak yow te kenn amul koy taxaw ci kanam yàlla naan kii nangam nangam loolu ay ay sóob la rek yooyu ngeen dégg fi Sénégal ñu naan ay benn waay naan demoon naa àlaxira ñëwaat rek la naa foofu ay problème ñëwaat nii Sénégal demoon naa de waa ji nee na dafa dem àlaxira quoi benn jigéen la sauvé woon waaye bi mu demee fekk na fa benn dossier fekk na gis na Jibril ànd ak ñaari malaaka sauvé na ñaata nit ah cent cent waaw kon mën na cent allahu akbar kon yéen Sénégal am ngeen ñoo xam dañuy dem alaxira di ñëwaat ah ah allahu akbar yéen ngan ngeen de yéen am ngeen lu yonente bi amul woon am ngeen lu sahaaba yi amul woon am ngeen lu taabiin yi amul woon am ngeen ñoo xam ne dañuy dem alaxira ba pare ñëwaat di lekk mbaxal ak ceebu jën dem ba aljanna nga defal man dinaa dem aljanna di ñëwaat fii benn waaye nee na man dootuma dem Afrique Afrique Afrique mu ne Europe nekk fa pitax moo gën nga nekk fi nit moo gën nga nekk Afrique nit gis ngeen vidéo bu ah benn pitax bu fii lii jàpp sapeur pompier ñëw ñu baare yoon bi ñaari ambulance auto sapeur pompier ñëw ay ay ay ay sapeur yéeg ban pi pitax bi rëcc pigeon bi rëcc allahu akbar fii fii nit day accidenté cinq heures de temps mu tëdd ci tali bi dara di jotee ko ñu yóbbu ko hôpital ñu naan kan moo ko jël en charge ana ay mbokkam ana place am yóbbu leen ko ñu koy wëral ba waa ji dee ci biir oto bi wala jigéen di am doom nga dem fee ñu ne demal fële nga dem fee ñu ne demal fële nga dem fee ñu ne demal fële après fu muy mujj mu dee wala doom ji dee wala ñoom ñaar ñëpp ñu dee wala mu am doom ak problème boo xam ne fa lay jógee dootul wér ba yowmal qiyaamati avec ça moo tax ñu bëgg norme ñu bëgg ñu bëgg tubaab bi duñ ñu raw bañ a raw ñoom ñu nangu nekk ay nit ñun ñun nag kenn xamul ñun lu nuy nuru ah xoolal fii buy taw sax dañuy ubbi foos yi ndox mi ngeen di gis ci tali bi lu ci ëpp du ndox do wala waaw fan la société bi jëm ay nit yoo xam ne nangu ñu nekk nit di def ay yëfuñ jaar am na yoo xam ne ñun dañ koy def sax rabu àll yi duñ ko def wallahi allazi la ilaha illa hu boo duggee ci internet bi di nga gis ay rabu àll ay nit di def loo xam ne rabu àll du ko def amul demal ma ñëw ku weddi jógal nga dem léegi nga dugg ci internet nga gis ay rabu àll am benn comportement boo xam ne nit yi amuñu ko allahu akbar chaque jour nga koy teg ban fu ñu jëm inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du changé ay nit waaye nit yooyu ñooy changé seen bopp kon ixwaan yi aaya yooyu moom mooy yi nga xam ne tey moom la ñuy jël mu nekk ñetti aaya sunu borom subhanahu wa taala di wax ci suratu tawba mu ne farihal muxallafuun cheikh bi ñëw na wala ñëwul mu ne farihal muxallafuun bi maqaadihim xilaafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah borom bi nee na fariha baatu fariha yéen ñi jàng arab lu muy tekki kontaan na fii lu maadi la fariha kontaan na bég na sarra bég na kontaan na ma ngay jibile ma ngay daw comme fii bu ngeen gañee coupe ah coupe kese ah ak lan ak lan Sénégal bu dugalee bi ak lan sa mbër bu daanee noonu dëkk bi génnee di daw def yarami neen nga gis ponkal yeeg paa yeeg meer yi ñëpp génn yenn saa yi sax nga gis màgget yi yor yat génn topp ci naan fuy kër Balla Gaye jëm fa looy uti mu ne damay damay feete ji victoire bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fariha kontaan na al muxallafuun ñi wuuteeg yonent bi xoolal wuuteeg yonent bi ba pare kontaan allahu akbar wuute lan mooy wuute dafa am wuutu ak wuute luy différence bi wuutu mooy nga remplacer nit place am wuute nag mooy nga opposé ko mu def lii nga def lii xoolal ñi dañoo opposé yàlla opposé yonent bi ba pare kontaan di sibile farihal muxallafuun bi maqadihim toog bi ñu toog yonent bi woo leen ne leen kaay leen ñu dem yàlla ne leen dem leen ànd ak yonent bi ñu ne ñun demuñu ba pare ñu kontaan de désibile di tëb kontaan doo yow demoo macha allah ngand nga looy wuti bon toogal kii xaw nañoo rey ndeysaan farihal muxallafuun bi maqadihim lan xilaafa rasulillah allahu akbar mu nekkoon xare naaj bi tàng jër waxee fii Sénégal ñu ne naaj bi daa tàng li de li tàngul de jusqu'à présent màkk naaj bi day tàng ba doo mën a julli boo amul sijaada boolal doo mën a julli ci actuellement nii laa wax waxuma fenn de ci li wër Kaaba gi yenn saa yi ci li wër jumaay Médine yenn saa yi am na fa karo yoo xam ne bu naaj bi tàngee boo ci taxawee cinq minutes munoo ko deux minutes sax mënoo ko mënoo cee taxaw allahu akbar tàngaay boobu xoolal imaginel tey ak ni ñu ko defaree tàngaay boo xamante ne ñemewoo sujjóot ñemewoo teg sa jë ci karo yi ñemewoo teg say loxo da ngay taxaw di xaar ku pare sijaadaam abal la fekkee ci biti nga jullee imaginel nag tey ji vingtième siècle natt ko démb septième siècle kon nan la tàngee woon natt ko ak tey moyens yi am yëpp nga xam ne lépp dañ ko climatiser tout nga dem fa julli jot nga taxaw gis nit ñi di julli ñu mënoo julli pourquoi yaa ngi ni armal ak sa armal yaa ngi taxaw mais ñemewoo taxaw ci naaj bi sa dàll yi ñemewoo ko simi ndax tàngaay natt ko rek ak nag tàngaayu septième siècle boobu nag la ñu yàlla di wax fii tàngaay boobu la yàlla ne woon saxaa ñenn ci jullit yi génn leen ànd ak yonent bi alayhi salaam am ñu génn am ñoo xam ne dañu ne demuñu pourquoi lu tax yéen demu leen lu tax yàlla ne leen dem leen ngeen bañ wa karihu ñu sib ñu bañ an yujaahidu ñu xeexi bi amwaalihim bañ nañu génn seen alal benn wa anfusihim bañ nañu génn seen bopp fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa qaalu yemuñ ci de au lieu sax ñoom ñu ne kenn ci ñoom bañ a dem ba pare noppi ne man demuma joxewuma sama alal xeexiwuma yemuñ ci wa qaalu ñu ne laa tanfiru fil xarri bu leen dem ci tàngaay bi toog leen dafa tàng yonente bi kum ñëw këram ne la nañ dem bul dem bu la laajee lu tax nga ne ko naaj bi daa tàng ah lan lañ doon woote jihaad fii ñaata ci ñun ñoo allahu akbar ñu ne naaj bi daal tax xoolal naaj naaj bu tàng lañ ne duñ dem naaj bu tàng ñun fii ñaata mbir lañ bàyyi ci yàlla ak yonent bi te du ay naaj du dara ñaata ñaata mbir lañ bàyyi loo xam ne yàlla ak sant ya moo ko santaane yonent bi moo ko sunnaal ñu bàyyi ko te naaj tàngul naaj bi daal seddu guy ah muuraay ah allahu akbar xoolal muuraay muuraay bi ak muuraay démb ak tey xoolal kaala yi kaala yi nga xam ne daanaka boo taxawee bi di seen yaraax ah allahu akbar kaala yi nga xam ne coton la boo ñaqee sax da koy naan kenn du ko gis allahu akbar soo nee nit muurul ñu ne laay tàngaay bi yàlla tere allahu akbar ah ay pas sax non non bu leen muur xale yi dafa tàng non nous sommes au vingt-et-unième siècle dañuy avancer ah dañuy avancer ba bàyyi santaane yàlla ci sant bàyyi santaane yàlla avancement am lan ngay dégg tey Jeanne d'Arc lan nga dégg Jeanne d'Arc ay jullit man sax waxuma yéeféer yooyu mais ay jullit taxaw naa ne non ñoo moom seen yëfan am nañ ca droit non Sénégal yàlla seede na ne man bu bu yàlla ne woon di changé leen euh, nationalité man dama koy changé fii dee fi wóorul de billahi wallahi wa taala dee Sénégal wóorul imagineel santaane yàlla waxuma ay yéeféer parce que yéeféer moom yéeféer la mais ay jullit maa dégg ci internet bi benn waaye di weddi aaya muuraay naan muuraay amul ci alxuraan amul jël aaya bi di ko firee nu mu ko neexa firi ko neneen naan loolu du muuraay bu ñu la bu leen ñu sonal yàlla waxul fenn nañ muuru Hmm? alxuraan bi ne weng wengaaral aaya yi ne weng hadis yi ne weng wengaaral islam sax ne jigéen bu muuruwul du jullit yonent bi ne jigéen bu muuruwul safara la jëm wala du hadis ah takunu fi axiri zaman nisa kaasiyaat aariyaat maailaat mumilaat ruusahunna ka aslimatul buxt lu yonent bi rek laa yadxulna aljanna wala yaziqna naimaha almara kulluha awra ma adal wajhi wal kaf kon ay hadis yi ak ay ya ayuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin ay yooyu lu mu ñuy jëriñ wala du ay ay alquran ak ay hadis il faut yow kay weddi nga yàlla neel weddi naa rek mais bul jël jullit yi di leen weddi loo yàlla ba pare nga défendre ngay ngay défendre ay yéeféer dégg naa ci benn émission bu ma doon suivre benn waay taxaw naan ñun chrétien yi ñoo ñu gën chrétien yi ñoo gën jullit yi xam nga chaque jour dañ dul xool dañ dul xool lan moo tax ñu ñu bëgg a jagle ngëneel gi ci ñooñu lu tax ñun ñaata lañ benn waaye dafa doon wane mu wane mu wane Bouddha xam ngeen Bouddha seen temple yi fi ñuy jaamoo yàlla mu wane dàll yi nu ñu ko defaree nu ñu ko organiser mu wane ko mu wane jàkka ji mu ne xoolal jàkka ji amul organisation xoolal dàll yi benn waaye ne ko non da ngaa comprendre da ngaa da ngaa boole lu bondu mu ne ñii juróom lañ mun nañu ranger seen daal ñii ay millions lañ daal lañ ko mën a ranger ñun Sénégal ñaata lañ ah 95 pour cent musulmans 95 ñu bëgg ñoo natt ak ñoo xam ne 2 pour cent 2 2 2 suñ doon jël jullit yu baax yi di ko natt ak ñii ñan ñooy mën ah mais chaque jour lu tax ñun sunu mbaax du feeñ est-ce que ñun ñoo leen ëpp voilà ëpp bi ñu leen ëpp moo tax sunu mbaax du feeñ. foo natt fukki chrétiens yu baax sans jullit yu baax a ngi foofu mais lu tax ñooñu mënuñoo feeñ parce que ci 100 yu baax yi 200 yu bon a ngi fa moo tax kenn kenn du jël loolu di ko natt di ko wax naan non benn waaye nee na ñun société bi ñuy liggéeyee diw moo fa nekk nangam la mais moo gën a sax jullit yi non yow sa gis-gis nga gis mais ci biir société bi ñaata jullit yu baax ñoo fa nekk yoo xam ne ñoo raw waa ji mais pourquoi moom rek ñu bëgg ko jël teg ko ci kaw c'est parce que ñun xamuñu nattukaay inna akramakum inda allah fan la nattukaay bi inna akramakum yàlla moo ngi nattukaay ah inna akramakum inda allah atqaakum mais du yii ñi du yii du lii du loolu kon foo ñu delloo si xel yi gis nga diina du xel diina du xel ba nga naan waaw nangam ñoo moom seen yëf ñoo non lan mooy ñoo moom seen yëf lan lañ moom même sax bu doon ci ay loi yi Sénégal ñoom moomuñu fi dara fan lañ jóge bitim réew indi sunu réew ñoo fekk nun ay jullit lañ lii la nu yàlla sant nga ñëw def sa yëf ba pare par exemple pharmacie Guigon ñëw ci ab dëkk boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman nga ne kenn du fi julli eh bu leen fi julli ah nga gis ay nit di leen défendre non c'est normal ah parce que julli ñi ay tappalekat lañ quoi bu ñuy julli duñu sëlmal waaw c'est normal est-ce que jullit yëpp la ñooy def loolu ñooy def loolu nañ leen wo ne leen may nañ leen 5 minutes wala 6 minutes wala 10 minutes seen julli gaa leen ngeen ñëw da ngeen di liggéey mais déedéet dañuy fekk benn pommiteur bu nëpp ñu bal jëbëg a jël saaku bi yëpp nëbal ko non non non non non non am na jullit yoo xam ne ci Sénégal kenn gënu leen ci àdduna bi loolu bu yeboo ñu xam ko dañoo baax dañoo yiw dañoo topp yàlla dañu topp sunna dañuy roy lépp lu baax loo xamante ne diine nangu nañ ko ah kon nag bu ñu jël ñëpp di leen paqueté déedéet ci biir société bi nag am na nit ñoo xam ne dañoo jàdd loolu société yëpp la foo dem da ngay fekk même jinne yi wa anna minnal muslimuna wa minnal même ci jinne yi adduna noonu la ko yàlla bindee ñi dañuy baax ñi bon waaye est ce que dañuy jël ñu bon ñi rek daal di sëpp ñëpp daal ne ñëpp a bon ah déedéet ñëpp bon waaw fii da ngay wax fii ñu ne ñëpp a yem ñëpp yemuñu nag bu ñëpp yemee am ñu xeeb seen cër way ñëpp yemuñu loolu yàllaa ko dogal hatta yonent yi yemuñu tilka rusul faddalna baaduhum ala baad wala tilka rusul faddalna baaduhum ala baad yonent yooyu ngeen di dégg yàlla nee na dañoo rawante wa minhum man kallama allah am na ñoo xam ne yàlla dafa wax ak ñoom ku mel ni Musa wa rafa baadahum fawqa baad yàlla dafa wax ak Musa wax ji neex topp Musa ne dama laa bëgg a gis yàlla ne ko mënoo maa gis loolu cëru Muhammad la Muhammad moom yemul ci wax ak yàlla moom dafa jàkkaarloog yàlla Moussa moom wax ak yàlla kese yem fa wala Nuux gisul yàlla Ibrahima xaritu yàlla la gisul yàlla amma Seydina Muhammad kon yàlla moo def loolu yonent yi sax yemuñu dañoo rawante doomu aadama yi dañoo rawante noonu mooy loolu mooy àdduna waaye bëgg a jël ñëpp yemale déedéet loolu surtout nag nga jël ay yéeféer di leen teg ci kaw ay julit loolu ku amul ngëm yàlla rek moo koy def ak ku amul seetlu ak ku mënul calcul ak ku xamul dëkk bi nu muy demee ixwaan yi sunu borom nee na gaa yi yemuñ ci bañ a dem ànd ak yonent bi xeexi waaye dañ doon zibile waaye kat dañ doon sensibiliser nit ñi naan leen bu leen dem wa qaalu la tanfiru fil xar bu leen dem ci tàngaay bi yonent bi yàlla ne ko waxal gaa yooyu tontu leen ne leen qul naara jahannama asaddu xarran law kaanu yafqahuun dañ leen woog ci tàngaay bi kaay leen ngeen jaamu ji yàlla ngeen lànk ñëw leen ngeen woor ngeen lànk naan daa tàng kaay leen ngeen julli ji ngeen naan daa tàng ngeen lànk ne du ngeen julli ji kaay leen ngeen jaamu yàlla ngeen lànk na nga leen tontu ne leen safara jahannama moo gën a tàng bu fekkoon ne am nañ xel dinañ comprendre wallahi safara jahannama tàngaayam foo ko natt wees na est-ce que xam ngeen ne bu àdduna bi tàngee ba nit ñi am problème est-ce que xam ngeen ne benn fenêtre ci jahannama la ñu ubbi moo tax nit ñi am problème fii ci tàngaayu àdduna bi xam ngeen lool ah xam leen lool bu àdduna tàngee laa wax ba nit ñi am jafe-jafe benn fenêtre ci jahannama la ñu ubbi muy noyyi moo tax àdduna bi am problème ndax tàngaay kon kooku fu ñu kuñ fa dugal foo jëm yeneen bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu wax loolu mu ne iza staddal xar fa adbiru bi solaa fa inna siddatal xar min fay i jahannam mu ne bu naaj bi tàngatee bu leen gaaw a julli yéexee leen tisbaar ak tàkkusaan yéexee leen ko bu leen julli ci tàngaay bi ñu ne ko lu tax mu ne safara mooy noyyi jahannama mooy noyyi allahu akbar jahannama moo tàng ba ñu ubbi benn fenêtre muy noyyi ci adduna bi tàngaay boobu jàpp waa adduna ba yonent bi ne bu leen julli ji heure boobu toog leen tuuti ba mu sedd allahu akbar kon jahannama nu mu tàngaayam nan la yonent bi alayhi salaam dafa dem laylatul isra wal mi'raj mu gis mikail mu ngi ñëkk kanam gaa ngi lëndëm reetaanul yonent bi ne jibril kii kan la mu ne ko kii mooy mikail mu ne ko maali laa ara mikail laa yadhak lu tax mikail du reetaan ah mu jibril ne yonent bi dafa mikail dafa yaakaar ne bu reetaane yàlla dugal ko jahannama allah ñun nag ah da ngay gis ku def bàkkaar ba pare naan booy nga booy ngand laa gaa yi wër ko ngand bi mu naan nii te bàkkaar la def de ah wala wala xoolal mbëri rek def yaramu neen sa jumbax say pooj sa sa sec sa awra lépp ci bit nga naan nii te li nga nekkee yàlla da kaa rëbb li nga nekkee da araam ngay ngand ngandal loolu ci lan la ba nga gis jigéen ji daf yaramu neen lépp nekk ci biti dung ween yeeg yaram yeeg tout ba pare di ngand ngandalu waaw di wane ne daa rafet di jaagar jaagar yi te lim def dafa xaram kontaan ci fan lañ jëm ñooñu tey boo leen neen ñu ne dafa tàng tey boo wax fekkee jigéen Sénégal yi nga leen kaay leen muuru lu ñu lay tont laa ilaha illallah bu ñu rey xanaa yow da ñoo bëgg a lakk yow xanaa da ñu allahu akbar dañuy fàtte ne bisa ngi ñëw ndeysaan seen yii ñu nekk yëpp dinañ ko bàyyi dañ leen leen ne cas wàcce leen lal bi génne leen kër yi ubbi morgue bi dugal leen 30 secondes ñu woote ci àddina bi yëpp ne diw faatu na ñëpp daje ci jàkka ji allahu akbar kenn du añ kenn du reer te suuluñu la fekk yaa ngi ci kër gi kenn du am jàmm su keroogee sa xarit yi la gën a bëgg say mbokk say am di jàmm sa jëkkër sa doom sa papa sa yaay ñooy tekki seeni kaala ci seeni baat takk ko seen ndigg jël peel xar suuf si gas ba mu xóot ne la cas dugal ci biir dem ñibbi su boobaa nag la wax ji bu la yàlla fekkee foofu ci biir pax boobu ne la santaane yi ma la santoon loo ci def foofoy wax loolu tax santaane yàlla kenn waru koo xeeb ndax képp ku la sant bisa ngi ñëw di nga bàyyi santaaneem waaye santaane yàlla moom di nga ko laaj kon nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax ay yi yi waa àdduna bi di wax tey ay daa tàngak daa soreek daa metteek daa daa daa daa daa maa jaala aleykum fi diini min haraj te gis nga tàngaay muuraay bii ngeen di gis nii jigéen di muuru jigéen ji nga xam ne dafa muuru normalement waxuma ki laxas kol de waxuma ki laxas kol jigéen ji muuru laa wax ci boppam ba ci suuf tànkam yow yaay gis ne dafa tàng mais moom tàngul ndax ne yaramam bi benn chaleur kese moo ci nekk kanamam gi nag ngay gis mu am ay ñaq-ñaq nga yaakaar ne dafa tàng moom tàngul xam ngeen frigo frigo ak cin daf ñuy daf ñuy wan tàngaay ak seddaay frigo ak cin cin bu ñu teg ci safara ci kaw gaz bi ñu ub ko ah est-ce que ci biir cin bi am na ndox dañ koy indi rek teg balaa ñu ci def diwlin bi ñu ub ko est-ce que ci biir am na ndox amul ndox waaye bu ñu yëkkatee kubéer gi ah boo yëkkatee kubéer gi nga ni ko nii nga gis kubéer gi di wàcce ndox ci biir cin bi lan moo tax ndox boobu am déedéet seddaay ak tàngaay ñoo daje seddaay ak tàngaay bu dajee rek mooy li ngeen di gis taw bi nga ubbee kubéer gi seddaay bi ngelaw li moo laal kubéer gi fekk mu ngi tàng contact boobu seddaay bi ak tàngaay bi am moo waral ndox mi wàcc ubbil frigo bi dafa congelé lépp soo ko ubbee deux minutes nga gis ndox wàcc lu tax parce que tàngaay moo ko laal seddaay la fekk seddaay ak tàngaay saa yu ñu amee contact mu am réaction soo jëlee kaas nga def ci ndox mu tàng jir nga dindi ko def ci ndox mu sedd kaas bi nu muy def moo tax benn benn benn climat moo fa war a nekk kaas bi lu tàng nga ci def dindi nga ko loo ci war a defaat lu tàng boo ci defee lu sedd mu toj kaas bi da nga cee def lu sedd dindi nga ko loo ci war a defaat boo ci defaatee lu tàng mu toj seddaay fu mu fekk tàngaay ndox day ñëw tàngaay fu mu fekk seddaay ndox day ñëw moo tax bu buggee taw borom bi tabaraka wa taala su dëkk bi tàngee niir yi dañuy naaw dem kaw asamaan waaye niir yi ba la ñuy yegg yàlla jël na benn couverture bu tàng jir lal ko ci kaw bu niir yi ñëwee day dugg yéen xanaa jàng ngeen loolu ba li bon bon xanaa jàng ngeen ko ci seen école yi lan mooy tax muy taw ah benn bi la mu ngoog amul changement ixwaan yi kon ay mbir la yoo xam ne mbiru borom bi tabaraka wa taala la yàlla tegul ci diine ji loo xam ne dafa metti ci jullit ñi ba mënuñu koo def maa jaala aleykum fi diin min xaraj amul yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra suñ borom nee na fal yadhaku ñii ñii di wër ci mbedd yi di yuuxu di tëb di cëppi cëppi ci bàyyi santaane yàlla ba pare kontaan fal yadhaku nañu ree qalilan lu tuuti lu tuuti la ñuy ree soirée bi nga organisé ngénte li nga am def ci musique mariage bi nga am def ci musique ñàkk sol yére bii nga ñàkk sol wala ñàkk julli bi nga ñàkk julli wala ñàkk def santaane yàlla bi ba pare di ree yàlla mu ne tuuti ngay ree parce que ay fan kese la ñetti at ngay toog di ree ñeenti at weer ñaari weer fukki at ñaar fukki at ñeent fukki at loolu ngay toog di reetaan après su loolu jeexee safara nga jëm moo tax yàlla mu ne ree leen lu tuuti fal yadhaku qalilan waaye wal yabku kasiiran danañ jooy lu bari danañ jooy biir bàmmeel lu bëree bëri waaye buñ dekkee àllaaxira danañ jooy lu bari parce que dund dootul am ñëwaat àdduna dootul am kon li ngay ree ci àdduna lu tuuti la parce que àdduna day jeex àllaaxira du jeex kon est-ce que nga nekk ci àdduna di tëb di dal di bonde te àdduna day jeex li nga fiy ree ak li nga fiy bég lu tuuti la kon fexeel nga tal àllaaxira moo tax yàlla mu ne fal yabku kasiiran jazaan bi ma kaanu yaksibuun jazaan lu ñu leen di fay la bi ma kaanu ca la ñu nekkoon yaksibuuna di ko fàggu lañ doon def ci àdduna loolu la leen yàlla di fay suñu borom nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa in rajaaka allahu ila taifatin minhum bu la yàlla dimbalee ba nga dem xare bi ba xare bi jeex ba nga dellu nag ca mbooloo ya nag ña bañoon a dem xeexi ña bañoon a àndoon ak yow ña bañoon a topp santaane yàlla topp santaane yonent ah boo delloo ci ñoom fastaazanuuka lil xuruj ñu ñëw nag fekk xare bi jeex na ñu ne la waaw léegi nag beneen yoon booy dem danañ dem yoon dem ne déedéet lan taxruju maayi abadan yéen kay pare naa ci yéen abadan dootu leen ànd ak man def dara yéen kay génne naa leen ci jullit yi dégg ngeen de bàyyi santaane yàlla kenn du ko def saa yoo banta bàyyi santaane yàlla yàlla pare na ci yow kon loolu kenn du ko kenn du ko néewal bàyyi santaane yàlla ba pare di bég dégg ngeen ñii bàyyi santaane yàlla lan la yàlla wax yonent bi bis boo delloo ba ñu dem nag ñëw nag bëgg ne la beneen yoon booy dem danañ ñëw wax leen lan taxruju ma'i abadan dootu leen ànd ak man walan tuqaatilu ma'i aduwan su may xeex ak samay noon dootu leen ci bokk ndax innakum yéen radaytum bil uqud da ngeen nangu woon toog kontaan ca bu njëkk ba toogaay moo leen gënaloon kon faqudu toog leen ma alxaalifiina àndeeg ñu wuuteeg yàlla wuuteeg yonent bi dem leen ngeen toog ci ñooñu yéen bokkatu leen ci ñun dem leen ca ña nga xam ne ñoo bañ a def santaane yàlla ñoo wuuteeg yàllaa ku yonent ngeen dem ànd ak ñoom yéen bokkatu leen ak ñun allahu akbar yow kon léegi ñi nekk Sénégal bañ a def santaane yàlla ak santaane yonent ñoom fu ñu bokk te ngeen leen jàpp leen dugal leen ci biir jullit yi ñooñu fu ngeen leen di boole santaane yàlla kenn du ko bàyyi ndax ndax sàngam santaane yonent bi kenn du ko bàyyi ndax sàngam saa yoo ko bàyyee yonent bi pare na ci yow yàlla pare na ci yow gis nga ñii benn fan rek kaay leen ngeen dem xeexi ñu ne naaj bi daa tàng ñoom waxuñu ñun duñu ay jullit de lan lañ wax ñoom dañu ne génn nañ ci lislaam est-ce que dañ koo wax ñoom lu ñu wax naaj bi daa tàng kon ñoom nangu nañ ne ay jullit lañ waaye dañu ne mënuñoo def mënuñoo dem yàlla ne leen pare ngeen yonent bi ne leen dem leen ngeen toog léegi nag xam nga ñii lii rek lañ wax yàlla génne leen ci lislaam ñun nag ay nit dañuy taxaw daan ne julli moo ay julli julli waay julli lan luy woor wooruñu fenn Allah luy muuru luy joxe azaka luy aji màkk màkka jarta dem ndoxum zam-zam baa ngi fii yàlla indi na ko Sénégal waaw arafaat ñu ne tey du suñu arafaat ñun waa Sénégal suba la suñu arafaat ah allahu akbar xam nga ñii moom waxuñu ñun duñu nangam ñun Sénégal dañuy wax ñun ñëpp di dégg wala ñëpp di dégg nga gis ku taxaw fi ne man yàlla laa nga ne yàlla mu ne la man yàlla laa wala ah kon nag mbokk jullit yi alxuraan a ngi nii lii ma doon wax yéen ñëpp mu ngi seen téere yi te nii ma ko doon waxee nii noonu la fa nekkee nekkul ne maa ko doon taawil waaye waxu yàlla tabaraka wa taala la te gis ngeen lii septième siècle la wàcc di duut baaraam jamono ña bokkoon ak yonent bi jamono yàlla naan leen ay naafiq ngeen tey ñu koy wax nii nga koy gis lii may wax nii nga koy gis nii di geestu naan est-ce que lii du diw est-ce que lii du man est-ce que lii du kii est-ce que lii du kii wax alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir loolu mooy sunu darsi tey ñoo ngi jubal jéggalu njuum tey asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu